alhamdulillahi alladi bi nicmatihi tatimu salihat wa tubaarakul xarakaat wa tudcaful xasanaat summa salaatu bi akmaliha maa salaami bi atamihi ala ashrafi wa akmali rusuli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 jëme ko ci seen jëmm yu tedd yu sell yi muy asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu di dellusiwaat ci kartanal yàlla sof ak yow sosoon ak yow ci wàllu corona bi di benn noon boo xam ne lëjël na huit àdduna bi yëpp te la gën a garaaw noon boo xam ne mu ngi jëf ci yow te yow mënoo koo gis kon dafa bokk ca soldaar yi yàlla ya yàlla junjoon ne fa arsalna alayhim rihan wa junudan lam tarawha wa kaana allahu bima taamaluuna basira yàlla ne ma hebal ci ñoom ngelaw waaye nag xebal naa ci ñoom ay soldaar yoo xam ne mënu leen leen a gis yàlla mooy ki xam lépp kon nag corona bi daal soldaar la am noon la buy jaamaarloo ak ñun te mënuñ koo gis mu ñëw nag yàq fi lu bari ñëw na tabaarakallaahu lu frontières yi réew mu ne ak moroomam ma ngay tëj frontière am ba ne yaa doon sama dëkkandoor yaa doon sama xarit yaa doon sama soppe waaye daal sama digganteeg yow daal frontière la xamoon rek ci maanaa waaye daanaka du frontière sa nit ñëy sama nit ña waaye tey réew mu ne feebar ba nekk fa ñamu dend ak tëj nañ frontière ba muy luy ñëw di yàq ak dëkkandoor benn ngoog ñaareel bi tere naa tukki boroom soxla yi boroom soxla boo xamee ne nii la ngay doxi faw nga dugg avion dem ba réew mbaa réew Amérique tëj na aéroport am ba ne benn vol bu war a bàyyi ko Europe du fa wàccati Europe européens yi tamit tëj nañ seen aéroport ya ne benn vol bu bàyyi ko Amérique du fa ñëwati Sénégal ak gis nga réew yi mu lim ne dootuñu wàccati fii ci suñu aéroport loola la cay yàqu ci koom-koomu alal la cay waroon a taxaw daan joxe dépense moom tuñ koo joxe doon ay góor góorgóorlu ñooñale aju woon ci seen gannaaw ñu aju woon seen gannaaw ñu ajuwaat ci seen gannaaw kenn xamut ni mu toll poor bi dem tëj ak poor yi loolu lépp mujj taxaw mu nekk kon kore naa ni nga mënee yàq bokk noonu nga mën a yàqee koom-koom waaye tamit noonu la mën a yàqee soxla ko xam yi soxla yu dul jeex faw nga génn ñu ne daal kenn ku nekk na xem ci këram rek ba tax na daal kenn ku ne ci ji jamono sa buntu kër mooy sa buntu frontière waratoo koo jéggi di seeti kenn waaye ñu ne waa daal kore naa daal yaa mën a toog toogloo doxkat bi ka doon xëy di tambaambaalu ci mbedd mi di dox di lijjanti ji lu mën a lijjanti pour kër gi mën a taxaw kooka tey ñu ne ko xëyal nga toog ci sa kër gi li te na sa koo xam ne këram mën naa toog léeg-léeg semaine ab lëbu du gisanteeg njabootam balaa ñëw xale yi tëdd balaa balaa buy génn fekk xale yi yeewooguñ noonu sax mën na koo defak yaayam mën na koo def ak papaam mën na koo def mbokkam kore naa bi ne yéen ñëpp dëju leen tey ngeen am temps dëkk ak seen njaboot gi tey ngeen am temps dëkk ak seen soxna yi tey ngeen am temps dëkk ak seen parents yi waaye la mu yàq bokk na ci ak bokk sa mbokk mu la mën a wooxati rawatina mu nekk dëkk bu mu am ne la ma laa bëgg a seet si nga ne ko toogal ba mbir yi jeex moom tamit mujj toog dootul mën a ñëwati yow boo ko bëggee seeti mu ne la toogal kon ñëw na dog ak dox ak mbokk corona bi ñëw na dagg ko euh, waaye tamit ñëw na an dagg fi ak jokkoo ci sa mbokk mi ci musaafaxa sa mbokk mi mu na ñëw nga ñëw nga jug nam mu ko dóor ko sa dënd bi mu dóor la dëndam bi nga dóor ko sa lex yi mu jox la ko nga jox ko sa loxo yi gësam ko corona bi ñëw ne bàyyi leen joxante loxo ba ma pare ci yéen feek pareeguma bu fi kenn joxati sa moroom loxo lex moom waxatuma ko na kenn ku ne dàndee moromam lu mu néew néew ab meetar moytul di wax sa tafli bi di dal ci moom sa portable bi lee nga miinoon di ko yëkkatee ko tëral te ko téye musuwaar bi del raxasu waxtu wu ne boo ko mënee raxasul tabaarakallaahu yooyu yëpp corona bi ñëw na kon dagg na mbokk ak dem ngénte yi dagg na mbokk ak dem dëj yi dagg na mbokk ak dem ak maanaam céetale gi waaye dagg na mbokk ak sax ah, demee fekkee néew yi ca jullee ga dem na sax ba dagg relation ak jàkka yi ñu jàkka yi mu doon bànneex ci xol yu bëri booy julli rek sa xol sedd ci biir jàkka ji di néegam yàlla corona bi mujj na ñëw tëj ko ca julli juróom ya yii mu tëj ko ca bisu àjjuma ya yooyu yëpp danaa ci ñëw gën la ko leeralal su ko defee tamit noonu la ñëw ba tëjal ñu umra gële la jiital ca Kaaba ga ni jullit bëggee euh, Makka ba boo joxoon ab xale bu amagul bàkkaar sarax ko sax la muy njëkk wax waay yaay jile mbaa papa jile yàlla nga dem màkk yow nag ñu ne la ah corona bi na toogal ba ma pare ci yow mënu boo dem màkk de takkoon nga say bagage verse ne da ngay umra ji bañ fa la hôtel ba mais du du nekk ren de toogal ba ma pare ci yow kon dakkal na loola waaye tamit dakkal na marché yi fonkoon ko lool guddeeg bëccëg ngay dem ci marché yi di jaay am na ñoo xam ne dañoo feebar feebaru marché tant que demuñ marché duñ duñ wér même buñ fa demoon jënduñ dara jaayuñ dara nañ dem rek corona bi ne toog leen ci kër yi bàyyi fi marché bi yéen liggéeykat yi nañ leen may ay fukki fan ak juróom ngeen toog donte lu wut seen waxtu conseil sax toog leen ngeen noppalu ko su ko defee ana xale yi eh, génn leen école yi yéen jàngalekat yi bàyyi leen dem ca école ba yéen ilimaan yi génn leen jàkka yi yéen maamoom yi bàyyi leen sàppeek sàppe yi ngeen julli ci gannaaw seen seen ilimaan ya yéen ñëpp jullee leen rek ci kër ya li leen lépp corona bi ñëw na tabaarakallaahu teg ñu ko mu nekk lu métti ci xol yi tabaarakallaahu métti ci jëmm yi metti tamit ci wàllu koom-koom bi dem na sax de ba wutal lay ñu xamutoon lay jamono ji ko seet ak dara mu waroon laa fay boo ko waxee mu ne ah corona tax liggi dëkk bi doxut may ma ba affaire bi jeex kañ kañ kañ foo jëm ñu ci bëri lu yewoon kër jàmb yi fa la ñuy jaaree profité duñ fayati lu yaas ñii bëri woon yóbbu seen doom yi ca daara ya bëgg caa profité duñ fayati ñenn ña yore loon nit ñi bor yi boo waxatee rek ñu mujj laqoo tabaarakallaahu miir bu yaatu bu gudd bile ne daal may ñu ba ca kanam rek mën a gut a nekk kon nag ñëw na jëlee si julli ca mbooloo ma jëlee fi umra ji yàlla bu mu fi jëlee hajji de jëlee na fi tabarakallahu ah daan dajee di yëkkati kàddug yàlla ga ca wasifa ya ca xadaratul jumaa yu neex yooya mbokk yu baax ye daan wër tabarakallahu di toog di defi ay jàng di la taggal yonantu bi rek ngay joxe xaalis corona bi ne toog leen de taggal leen ko ci seen biir kër ya dañ ci daan jëlee lu ñuy dugal ci seen poche yi di yóbbu conférencier ya daan conférence yu ne ni jox xaalis lépp ñu ne leen du fii de conférence ya aju na làmb ja waxi nopp ca terrain football ba waxi nopp tabaarakallaahu géwéla log yi nga xam ne nag ñu daan ñëw bàyyi seen maam yu baax yi di leen taggal seen maam yu baax yi nga yëkkati sa poos jox ko corona bi ne eh, bàyyi leen tam leen ngeen toog aj leen seen ndënd yi at leen seen bombo yi ak seen riite yeeg seen bala balambata yi musiciens yeeg ña fayoon bëggoon a def ay concert yëpp corona bi ñëw na tëj ko kon daal yii yëpp lenn la ci ay conséquences yoo xam ne corona bi def na ko fi waaye am na ci yoo xam ne maa ngi ñaan buy dem yàlla na ko yóbbu xale am na ci yu baax yu mu fi bàyyi yu mu fi fekkoon jële ko fi yàlla na dem te yooyu del ci xaat namm nañ wasifa de namm nañ hadratul juma namm nañ julleeg juma namm nañ julleeg mbooloo ya ca jàkka ja namm nañ dajee di jàng alquran namm nañ dajee di defi daayire jàng ay xasaayit defi ay kuréel namm nañ maanaam laax yi ngénte ya ak ceeb yooya tabaarakallaahu ak géwél yu baax yelay wër di la way bàyyi seen i maam namm nañ conférence ya namm nañ tabaarakallaahu daara ya alquran yi ngay toog xale yay jàng mu nekk luy saafara sa xol bi de yooyu yëpp tabaarakallaahu corona bi ñëw ne daal aj leen ko ba ma pare ci yéen yàlla na gaaw a pare ci ñun te mu pare ci ñun pare jàmm pare ci ñun pare xéewal pare ci ñun tabaarakallaahu pare naataange waaye waxoon naa la démb juróom yi ko sabab ca yenn ya waaye bokk na ci yi ko sabab bokkaale gi dafa bëri ñii woote ñu ñooy jullit ne gëm nañ yàlla bokkaale gi ñuy bokkaale ci pas-pas di ko bokkaale ci wax ci wutal yàlla ndend jël yàlla wutal ko morom di doxadal yàlla mu màgg mooma ci ay wax te seen bokkaale ga hegg na foo xam ne sax ña doon bokkaale yàlla te amuñu diine sax segguñ fa woon ba tax léegi-léegi sa seytaan ne ah yéen nag neexul ba neexul mais xëppal ngeen ba tax na daal la yàlla waxoon ne wama yuminu aksaruhum billahi illa wahum musrikuuna ja tey hegg nañ ca bokkaale gu bari lool booy seetaan télé yi maam man yi nekk fi kenn ku ci nekk di hoote sa morom jëlee ca salihuma dara ko wax mu wax lii waat du ko defee bokkaale kat yu bëri kenn ku ci nekk nga làqoo ab sëriñ ne mooy sama diw diw laa bokk ponkalam foto teg ko fa bëgg mu seedee la li ngay defee nga koy dëgërloo di ko def mbubb moo bëgg maanaam di ko sol te doo nangu moom mu sol la yooyu yëpp dafa bëri bokkaale gi bëri ba jéggi dayo yóbboo nañu corona bi waaye fen yi bokk na ci li ko indi téeméeri baat yu la sa nit wax juróom-ñeent fukk yaak juróom-ñeent ay kàcc la benn ba sax boo yeboo am ca ca sikk danaa wax doo danaa ta doo wax danaa ta doo def dara dafa bëri ci ay kàcc ku la hëpp daraja dàq laa kàcc ku la hëpp ndomba tànk ëpp la daraja ëpp la kaala taxaw di kàcc di di di yokkal ay garaat lu amut di dàqal garaat koo xam ne nii xolama ko bëggut nga nekk ab ilimaan nekk kilifa di wax wax joo xam ne ba nga koy wax yow mi koy wax wóor la di péng ne da ngay say doom xam ne da ngay kàcc say soxna xam ko say mbokk xam ko say àndandoor xam ko loolu gàcce te yow sax defoo ko gàcce kon nag te xam nga ne fen fu mu bëri rëbbam yàlla dal fa allah laanatullahi alal kaasibiin kon loola mënul ñàkk indi corona beneen ngi tooñ dafa bëri ki néew doole ñi néewal ko ñi gën di ko néewal doole ki am àq te amul doole ñi xeeñ ko xàqam ku man sa morom di ko duma nit ñiy lekkante comme jën kenn ku ci nekk doole jala yàlla jox au lieu que nga dimbali koo ko dimbali ko ko amul doole mais da nga koo jël di ca néewal doole ku waroon a am doole sa kanam lu nekk ci wàllu néewal doole kooku yàlla du ko seetaan ñaareel bi tamit seetaan nga ñuy néewal doole nga man caa wax wala nga man caa jëf nga taxaw ne sama yoon nekkut ci da nga nekk jullit nekk ab kilifa te boo ca waxoon mu dakk su boobaa kon nag mun munkar day bari bëri te man raa minkum munkaran fal yughayyiru bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisaanihi fa in lam yastati fa bi qalbihi wa dalika adaaful iman bëri goog tooñ bëri ak seetaan ku ñuy tooñ ñi bañ koo dimbale te yonent bi ne woon unsur axaaka zaliman aw masluman loola tamit bokk na ci sabab corona bi bokk na ci riba nga xam ne xamul dara lu ko gën a xaraam ci luy nit di dugal ci biiram mooy lu ko gën gën a gën a xaraam riba xamut benn waaye dafa amoon soxna mu naan sàngara ci jamonoy Malick mu ne ko fekkee sa biir bii li nga ci dugal muy sàngara lu ko gën a bon am na fase naa la mu dem ci maam Malick wax ko mu ne ko may ma ba suba Malick jël kaamil bi di jàng bay yegg ci suratul baqara yegg ci ayab riba eh ba mu ko waxee nag mu ne ko sa jabar ji fasewu na sàngara li muy bon bon ah, riba ko gën a bon kon ñàkk nga sa jabar ji ndax fi nga aj sa fase ni ah, ah, maanaam ajjeeku na kon lu gën a xaraam riba amul te léegi système yi ñuy jëflante yëpp riba rek la ci banque yi ci jëflante yi ak riba nandite yi ci carte yi ak yeneen ak yeneen ak yeneen yi lay yëpp riba bu bëri tasaaroo ci réew yi jullit ñi ñu di ko lekk di ca jëflante di ca dénkaane di ca nangu seen ab dénkaane ya intérêt di ca tegu ñëpp di ca dund ca wàllu woowa mu yaatu ba daanaka mucc ca jafe na loolu yëpp bokk na ci li ko indi feebar bi waaye bokk na ci li ko indi nger nit jël la dugal la ci entreprise weer wu dee mu fay la wala état jël la teg la ci place weer wu dee ñu fay la ngay jël fa di tardeel dossier jàmbur yi lu war a am benn waxtu nga téye ko lu ëpp ñaari weer waaje yéeg ka wàcc rek di witt aw ñaqam lam ca ajoon lépp tardé ngir ak benn signature yaa ngi seet ña ñëw nger la nga jël dossier ya féetee woon suuf féetale ko kaw yóbbu ko ci kilifa gi mu signé ko ya féetee woon kaw féetee woo suuf su ko defee tamit nga gën di néewal doole ñooña xaq ñu bon jooja te yonent bi ne woon yàlla rëbb na kiy nger ak kañuy nger ak ka dox commission ba yooyu yëpp bëri ba kenn ku ci nekk teg ci sa bët boo xoolee gis ko boo dégloo dégg ko boo làmbee daj ko boo jëflante jëflante ko seeni morom mu bëri ca lool ci tali bi nger ga bëri lool ci atte yi nger ga bëri lool ci bureau yi nger ga bëri lool ci jëflante yi lu ne na tuddee ko ko utal ko njëgu suukar nga ne suukar de kilo bi six la xanaa mu ne kooku du laal de ñaar fukki junne lay laal mbaa ñeent fukk wala utal ko njëgu warga ku ko utal ko njëgu café utal ko nangam ak nangam utal ko essence utal ko nangam ak nangam tur yooyu yëpp du ko tax a dagan donte yooyu ñu tuddee ko muy café dagan na ataaya dagan na suukar dagan na waaye lii ñu tuddee ko moom muy ak nger du ko tax a dagan ba péncam yàlla loolu loola bëri na lool nga gis koo xam ne tey dossier bi li ñu war a euh, euh, fourniture yëpp li koy laaj def na ko fa war a jaar lépp def na ko mu jël teg ko ci foo xam ne nag foofu lay war a génnee mu mën a doom faje ay soxlaam dossier ba war faa am benn minute mbaa ñaari minute ñu téye ko fa ñaari weer mu yéeg ko wàcc rek te loola bari lool doo ca ruus dara doo ca bañ dara nga nekk nit koo xam ne yaay jaay sa bopp te yaay wax sa prix bi ñaata la yow mi lekk nger taaw waa ji nga jàpp ko ci kaw tali bi teguwul ci yoon mu ñëw leemaale ca permis ba ñaari téeméer walla ñeenti téeméer nga ne ah dara kooka mën naa dem normalut mu jël indi accident ay nit dee ca te yow yaay sabab ba te yoon nekkut ca ndeke yow sa prix bi yëpp yaa ni deux mille la mbaa mille franc la am koo xam ne foog mu ñu la yokkal ma ngay jëm ak yow mille mooy prix am kii cent mille franc waaye doomu aadama moo gën a seer ay milliards ndax moo mën a liggéey milliards te milliards mënta liggéey doomu aadama kon boo demee bay jaay sa bopp rek ak loo ko mën a jaayee ci nger rek xeebu nga torox nga doxadal nga sa bopp xamoo woon li la fi yàlla indee waaye Euh, li ko indi bokk na ci xaste yi yàqante der yi ci internet bi mag ñu baax ñi mucc ñu ci mag moo génnee photom am ñu taxaw saaga ko yàq deram wax wax ju bon ci moom te yonent bi daan wax ne tudd leen seen rafet rafeti niiw yi te ngeen fegu ca yu ñaaw ya ku fi yàgg yàggee léegi nag làmmeñ wu ñaaw wa ci sëriñ yu baax yi ñii dañ daan dem diiwaan ñii di fanaane aras ñii taalif fi ay téere ñii forme fi ay góor yàlla yu baax tabax fi ay jàkka ak i jumaa gindi nit ñu teg leen ci yoonu siraatal mustaqima ñu waroon leen amee la addiyaay ñaanal leen tey ñi amee addiyaay di leen i saaga di leen i xas di leen i duutal te yonentu bi nee na maag mabbu kaaba kaabaag yàlla ji def ko pari doj moo gën a xoyof ci yàlla ak loolu li muy garaaw garaaw xotti xormaay nitu yàlla tey nag xotti xormaay nitu yàlla yi ay xale yu ndaw juddoo guñu loolu la def tey muy seen bànneex def ko muy seeni i bës ñi leen di utiliser ñiy baw tax am na ñoo xam ne ku leen baw dootoo bawati am na ñoo xam ne ku leen saaga dootoo saagaati ba ba ngay dee safara ngay xeewoo ji yonentu bi ne yàlla wax sasul xudsi ne man aada lii waliyan faqad asantuhu bil harb yow nga noonoo nitu yàlla yi waxtu ñoom lu bon ngir ak ay financement ngir ak ay virement yi la tax nga wiire ngir ak ay sec yoo xam ne moo ñëw sànni sa sag bi xam nga ne yow ku xées nga ku bon nga waaye tamit yooya bokk na ca xoote ay maqaama ku la mujj a juddu gën laa ñeme xoote maqaama xut ponkalam kaalaam di xoote ñu ñàkk fayda ña mag ñuy xut dépense ña ak kale yu ñu yarut ña ak jigéen ñu xamul kilifa ya papp ko di ko ñaanal mu foog mi ngi ci dara yàlla na barke bi yàlla na barke bi yokk yàlla na barke bi yokk fekk nattu rek ca la nit waaye xamu ko bis bu ruuxu gi teqali ko jëmm ji ci la koy door a xam woote ay maqaama di kàcc nekk ci internet yi ñi nekk ci télé yi ñi nekk ci rajo yi ñi nekk ci yeneen i place lu ne nga xoote ko maqaama yoo xam ne gaa yu mag ña sax ñun muñ ko woon woote na Tidiane gàngooram nga Seydil Hadji Malick ak gàngooram ga Seydil Hadji Abdoulaye ak gàngooram gàngoor ga manqué nam mu njaboot gu tedd ga nga xam ne ñoo soqee ko ci moom ñiiñ mu yar leen defar leen sañu muñ koon a woote yow ga taxaw di woote yu mel noona waaye tamit ak maanaam njaaloo gu bari gi ci ji jamono ku la mu juddu bu dàq laa njaaloo gën la koo ñeme ci góor ñi ak jigéen ñi loola tasaaroo wisaaroo ca fu ne lii bokk na ci li indi feebar bile waaye tamit ndéggital gi ak ngistal gi kenn ku ne yaa ngay tàkk ay ndimbal waaye sàkk ndimbal looy dimbalee ku néew doole loo cay uh, utee ab télévision di ko fay wane ne kaay leen xool li may def boo ko defee ñi caméra la ngay wane di wax rek lii maa ñëw fekk ñu ñëw doole yow fekkee bala ngaa teral nit ci da nga koo toroxal googu teral lu muy jëriñati bu yàlla taxee mag ñi daanañ dëkk ak ku néew doole mu ko mu leen ñi koy dimbalee ba mu dee te du xam ne ñoo ko dimbale dañuy bàyyi ba suuf sedd rek ñu wàccee benn saakoob dugub mbaa saakoob ceeb ca kaw miiram ba bu xeewoo rek jël ko boo waaj a dee gisatu ko lay door a xam ne kii moom a ko doon jox waaye léegi lu ci waay yëkkati ay ndimbal ay omo yi nga xam ne du dara ak ay kotole ki ay basan jëm ci daara foo jëm maanaam caméra ba dar la nga ne dañ xool leen ma wal fajri nga yëkkati la ngay fay xool leen ma TFM yaa koy fay wane ne kaay leen wane ma ma gis fal ci li may def ñi wax la nga wax ñi wax nangam ak nangam te bëri na koo cay wane ca tele ba muy wane ay ndimbalam wallahi bu la jabaram jege woon la wala mbokkam ya kon yooyu yëpp jaru ko booy def defal ngir yàlla yàlla bu ko gisee moo koy wan jullit ñi i'malu fa sa yara allahu amalakum wa rasuluhu wal muminuun lu rek moo am solo waaye ngis tal dafa bëri ndégg tali yi bëri nañ ma dégg nañ ma gis loo def publier ko boo solee yére publier ko nga solam mbaxana publier ko ràngoo sa kaala gi publier ko téye ponkalam course publier ko yore kaamil bi tiim ko ne jaamu katab yàlla laa publier ko yaa ngay kabaar bi julli publier ko yaa ngi publier loo xam ne sax mën naa am image bi dafa fulu ca malaaka ya muy kiraaman bii na sax jotaguñ image ba ndax mun naa am son bi baaxut mën naa am maanaam écrit bi baaxut mën naa am tamit tabaarakallaa image bi baaxut yow nga tasaare ko àdduna bi fekk demul fenn nga yàkkamti rek waaye waxuma la njaaloo gi ak tiitaroo geeg ngistal geeg wane nii laa dayoog rëy rëylu géeg fonk ji waaye reyante gi ci bëri eh, njaaloog nit doy na bàkkaar xématoo ca nga faat bakkanam ba ñaata yoon lañ ko fi dégg ci ay xale yu ndaw ñii ñi ëmb ñi rey leen jàllar bi ko ñii tamit jur ay doom topp seen bakkan ba mu neex leen ñi rey doom ja daggate ko dugal ko ci saako waaye lii yàlla mën ta ñàkk a mer mënuñoo ñàkk a sàññi yi la yëpp dafa bëri tabaarakallaahu daa bëri waxuma la nag rambaaj gi ci biir kër yi ak ci biir euh, société yi ci biir entreprise yi ci biir mbokk gi am ñu koy utee dépense te xam nga kilifa yu bari yàlla may leen xalal dafa bokk ci seen nattu dañoo bëgg ku leen i fenal bëgg ku leen i rambaaje bëgg ku leen i jaxasoog seen i mbokk wala ku leen i jaxasoog nit ñi yéen a mel nit ñi funku rek ma ne ngeen a yàkkamti rek bàyyil ba dee ku dee da nga néwi waaye boole kook liwaat gi góor jigéen ji fi góor jigéen hegg tey actuellement ba àdduna sosoo ba léegi mosut cee hegg góor jigéen ñi taxoon yàlla tukkal àdduna ñeenti junni rek la ñu woon falammaa jaa amrunaa ja'alnaa aaliyahaa saafilahaa ñeenti junni kese tey nag li fi góor jigéen ñaata million la ñaata réew ñoo ñoom ñoom ñoo légalisé góor ak góor mën a sëy jigéen ak jigéen mën a sëy muy sixaaq ak liwaat tey ni mu tasaarooxee ci àdduna bi groupe goo xam ne ku leen laal tey ñu dal ci seen kaw nuñ ko mën a xeexee dañ ko xeexee nga xam ne tey yu ci mucc yombul boo ci muccee ci jëfandikoo ko mënoo cee mucc ci système bi ak ca solaay ya ak ca comportement ba yoola yëpp bokk na ci li indi feebar bu bon bi ci suñ kaw waaye liggéeyante bi soxorante bi nit a ngi nii moo ma ma bokk dafa maa bëgg a raw liggéeyal ma ko mu dee liggéeyal ma ko mu trop liggéeyal ma ko mu ñàkk lim am mu jaral la joxe sa alal yow tamit nga dajee ku ñeme yàlla ku bon mu nangul la loola lii lépp li fi indi feebar du ci la bokk waaye bëgg àdduna gi ku la ëpp xam-xam gën laa bëgg àdduna gën laa bañ àllaaxira sopp dundu ragal dee bëgg puukare ko feeñ bëgg ngis yu kenn xamut lii leen lépp bokk na ci eh, li indi feebar bi moom daal ci tënk mbooleem juróom-ñaari cër yi ñu yàlla sédd ñu waroon ko dimbanikoo ci topp ko ñu ngi koy dimbanikoo di ko mooy inna sama wal basara wal fuaada kullu ulaay kaana anu masulan joojo yëpp ñu ngi koy moy yàlla al yawma naxtimu ala afwaayihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum yooyu yëpp ñu ngi koy sukkandiku di jël tànk di ca dox luy mooy yàlla jël awra di ca mooy yàlla jël biir di ca mooy yàlla jël làmmeñ di ca mooy yàlla jëli loxo di ca mooy yàlla waxuma la bët ak nopp ak ya ca tegu ilee yëpp bokk na fi li fi indi feebar bi su ma ko doon tënk daal damay wax ne xeet ya ñu jiitu woon fa ñu heggoon ci mbon ba yàlla xalak leen ñun tey passé nañ ko bu yàgg yàgg yàlla nag rusee ñu xeetu yonantu bi bëgg gim ñu bëgg nag mooy defa ci yàgg rek mu laa suñu benn message bëgg ñëpp liir ko ndoor mën a dëppaat ni daal xëppal ngeen fi ngeen hegg sori na ba jéggi dayoo yéen a gën a sori ñi leen jiitu woon dëppaat leen boobaa nag ah mën naa nekkee ibra nit ñi man caa xalam ñi ci yàlla namm ci ñoom dinañ arriéraat jàngoro ji bu demee ba jeex te yàlla na ko yàlla jeexal dana fi bàyyi leçon bu mag boo xam ne ñi am xel danañ ko jàngat ba péncam yàlla dootuñ ko fàtte ci kon nag daal mbooleem xeeti mooy yi tasaaroo woon ci xeet ya ñu jiitu woon ci niti aadama ya niti yonentu yàlla noox ñi te yonentu yàlla ibrahima ya ñi te yonentu yàlla moussa ya ñi te yonentu yàlla ya yooyu yëpp dañoo dafa daje tey ci ji jamono bañ dolliwaat ca loo xam ne ñoom sax xamuñ ko woon lii lépp nag moo ñu indil tabaarakallaahu feebar yu bon yi le ñëw dal ci suñu kaw tey ñëpp ngi yuuxu waaye réew yi nga xam ne ñoo fi xëppoon doole di bàkku naan man asadu minna quwa ana kan moo ñu ëpp doole te yàlla wan leen leen ne leen maay ki leen ëpp doole ñi leen bàkku naan maanaam nahnu ulu quwatin wa ulu basin sadid tey ñoom ñëpp mujj nañ sukkuraam ne xamuñu amuñu mënuñu kon yàlla rek mooy ki am doole innal quwata lillahi jamian loolu la euh, la bu mag buñ koy mën a jàngee ci corona bi nga xam ne dana ko fi dana ko fi dana ko Euh, bàyyi euh, waaye ala kulli haal wax naa la yenn ci yi indi jàngoro ci danaa la ko toppal nag ñii par benn gis nga wax la xeet wu ne lañ lañ lañ lañ lañ lañ nekkoon lan feebar ba leen yàlla tegoon danaa la wax peste yi fi jaar benn bu ne ana lan lan moo tegoon tax yàlla teg ko seeni nit ña peste bi yàlla tegoon nit yonent yàlla ibrahima ya lu ko waraloon ak nañ leen def ba feebar ba Euh, euh, euh, maanaam toxu nitu yonent yàlla Moussa ya ak nitu yonent yàlla Isa ya rawatina Moussa gaayam ya bañ duggee ci bokkaale rek la leen andil feebaru corona bi bu métti bii mu andil leen ko tabaarakallaahu mooy niti ña te benn bàkkaar lañ def mooy bàkkaar ab ci jaamu nag wa danaa ko wax yàlla jël feebaru corona dalal leen ko ñoom tamit ñu ba alku waaye yëpp topp ma suba ci waxtu yi in uridu ilal islaha wa ma tawfiqiya illa billahi alayhi tawakkaltu inni wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu